yaa latiifu yaa kariimu yaa jaliil ci wàccaayu Tabaski 2020 bi commission sociale bu Touba ca kanam defatina liggéey bu am solo jëm ci taxawu néew ji doole ji nga xam ne dañoo nekk ci yenn quartier périphérique yi nekkee ci Touba jàppale leen ngir ñu mën a amal tabaski bi loole moo tax commission sociale bu Touba ca kanam jàppale lu ëpp fukki junniy nit ak ñett jox leen ay yére yu mucc ayib ngir ñu mën a sol lu yees ci tabaski bi yemu ca ne yëkkati it lu ëpp 12 millions de francs CFA yoo xam ne da koo jàppale ñi nga xam ne dañoo war a jënd xar te jamono bi seen loxo jotul seen ginnaaw ci noonee it la jëndee ay xar jébbal ko néew ji doole yi nga xam ne dañoo nekke ci quartier Tawfekh Bousso ginnaaw bu ginnaaw mu leen tabaxalee ay néeg ngir gën a ñoŋal seen dëkkuwaay yi ñoom askan wi nag sant nañ bu baax a baax commission sociale bu Touba ca kanam ndax ñoom yaakaaroon nañ ni ren duñu tabaski kontaan kontaanati naa santati nañ. waaw santati nañ. waaw fi mu nu jëli mm-hmm. fi nu jëmee ko gën. bu dul woon moom. Mm. kon xam na fu nu jëm sëñ sëñ Mourtala. Mm. dafa ñëw indaale jàmmam. Mm-hmm. ak yërmandeem. Mm. moom bu ko neexoon mënoon nañu ñoo bañ a lijjanti wante mi ngi ñu lijjanti ndaxte am na ñoo xam si ni bu seen bopp seddee rek yaakaar nañ beneen bopp euh, tàngatut kontaan nañ sant nañ gërëm nañ. waaw ñoo ngi koy sant bu baax mu talaa ñoo ngi koy sant bu baax. mënuma sax wax naa naa leen bàyyi yàlla rek ak Serigne Touba muy borom dëkk bi rek na leen yàlla fay. xam ne ay waay laago lañ te nekkee ci dëkk bii di Touba commission sociale bu Touba ca kanam ginnaaw bum leen tabaxale jamono yi weesu ab kër gu mucc ayib jébbal leen ko. demaat na fa ci wàccaayu tabaski bi jébbal leen ay xar ñoom waaye laago yile ngir jàppale leen ko ci tabaski bi. dama naan dama leen di santaat laay wax dama leen di santaat ndax li ngeen ma indil kat lu mel nii dong moom la sama sëriñ bi fexe ji woon tey ji boo xamoon ne da ngeen koy indi tey moom du du génn ndax fa mu jëm gisut daa daa yaakaare woon dong nag waaye boo xamoon ne da indim tabaski ci kër gi tey du ma ne ko du du ne damay dem waaye nag maa ngi leen di sant lii ngeen def ngeen gën koo mu gën a yokk ca kaw rek ca kaw ca kanam ba taalu be bu néew doole comme man mii rek ngeen mën ko koo defal yéen waa réew mi kum dégg sama kàddu Touba Touba sa kanam daal moom li ñuy def li ma ca xam mooy ku nekk jullit bu ne na ci yeb loxoom jullit bu ne na ci yeb loxoom ah man de jëlee nañ ma fu fu woon ndax kat kër gi ko fi ñëwoon ñëwaat fi tey jii dinañ xam ne waatu Touba ca kanam yem nañ ci seen loxo gis ngeen ko ba ci Tabaski mi ñu taxawal sama góor sama góor yi yàlla yi yàlla daal moo leen mën a fay yàlla mi mën a fay na leen fay yàlla mi am na leen fay sëñ bii moom comme la ma ko waxoon rek toogaay sëñ Mourtala Mbacke mi toogaayam bi mu toog ci att bi sama att bi jaral na ma lu ne waxuma buy ñëw indaale loo xamante ne nii ab ab lim lay doon loo xam ne saa bu ko indee rek di dinaan dinañ xam ne indi na ko kon nag teraanga ju bari lay doon kon nag maa ngi koy sant bu baax di ñaanal di ko ñaanal aw fanam gudd ak ak ak ak wéram maa ngi leen di ñaanal li yéen di def yal na ko yàlla yàlla na ko yàlla gis ci li ngeen bëgg si doole seen Tuubaa yal ko yàlla def maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay lii du ma ne tey jota dama naan bari na ay at at yéen a nii di nu dimbali maa ngi ñaanal seen xibaar yokk ak seen wér fa leen bëgg a egg yéen a xam yal na leen fa yàlla egg seen bi toog moom mënuma kaa fay sax yàlla yàlla yàlla mi ko wàcc rek yal ko fayal boppam te doole seen saali maa ngi ñaan nañ yal na ñëpp ci barke Sëriñ sa kanam moom amul sa fay yàlla am sa fay yàlla mi am sa fay yàlla na la ndax da fekk fu metti mu jëlee la fa kon Touba sa kanam jàccen yàlla am liggéey bu am solo bii nag di taxawaay boo xam ne commission sociale bu Touba ca kanam mi ngi koy amal li yëpp nag bàyyeekoowul ci ñaar téeméer yi nga xam ne murid yi ñoom lañuy joxe ci tubaa ca kanam waaye ay jaayante la yoo xam ne lu waay mën rekk daldi ko ci barkeeloo ngir ñuy mën a dimbale néew ji doole ji nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi ci ay dëkkuwaay am paj ak saafara mbooleem seeni jafe-jafe kon ay ca murid bu liggéey bi laal suuf حامل جميعنا بالعرف كالجميل